asalaamaaleykum internet 221 people dal leen ak jàmm ci seen xibaaru bés bi ñu digtal leen li gën a fës ci xibaar yi Médina Baye am nañ dëj le xalif général de la ville religieuse Cheikh Ahmed Tidiane Niass moo génn àdduna tey ji ci dimanche à l'hôpital Idrissa Pouye ex-CTO à Dakar xibaar bi nag ñu ngi ko jëlee fële ca E-Média Ahmed Tidiane Niass mu ngi âgé lu toll ci 88 ans nekkoon doomu Baye ak Zeyda Mariama Niang Cheikh Ibrahima Niass est né en mai 1932 à Kossi, une localité située à 9 de Kaolack. Il porte le nom du fondateur de la Tidjania mi ngi nekk quatrième xalif de Baye Niass. jërëjëf internaute 221 people ñu ngi leen a jox dig daje ak yeneen xibaar.